dal leen ak jàmm Ndella Madior Diouf dugg na ci rapide sambalaw be du fu ko neex lay terse ci wàllu pouponnière bi mu tuddee kër yërmande yi bëri jàpp ni ah du kër yërmande ndaxte lu fa xew na libération nee na ah ñi ñu laaj yëpp daanaka ñoom dañu enfoncé kii di Ndella Madior Diouf dañoo ne nañ waxante dëgg dañu waxante dëgg Ndella Madior Diouf pouponnière boobu du kër yërmande door kaay wuti waaye xaalis daanaka loolu la ko doon doyee waa dóor marto major da doon utiliser ay tur nit ñi siiw daanaka dañuy dem ci koo xamante ni ministre la wala siiw chanteur la ne waaw may naa la doom waaw tuddee naa la doom xam nga loolu tuddee naa indil mu jënd meew jënd couche indil waaw jox naa la tur wi kooku joxe un million deux millions jël xaalis boobu kaaw ko garde sama naataango yokk ni am na benn koo xamante ni moom dafa dem ba benn ma ne waa léegi Ndella Madior Diouf jàppale jàppale nga ma kontaan naa ci yow léegi a dem a jëlaat sa a jëlaat sa doom cinq lu ko mooy du fi bouger ma wax la ko ma naataango yokk ni ah am na sa ay accouchement clandestin yoo da ko doon def foofule ngir récupérer bébé yi sama naataango yokk nii waaw lii lii lii yi wone ne ni ñaari xale yi ñàkk seen bàkkan daanaka mun ñu am meew dénutrition daanaka enquête bi loolu la wone l'observateur ne enquête bi ambale wu na toll ni juróom-ñaar lunu yoo xamante ni ñi doon liggéeyee ci Ndella Madior jot nañ leen placé garde à vue ñaar bi ñu toj ko tëri fu mu toll ni ñu ngi jéem xool naka la ñuy identifier certifié yaayu xale yi xam ñan la sama naataango ne ah rapport médecin yi ñu ngi koy xaarandi itam naka noonu état de santé bébé yi sama naataango ne ah responsabilité état Sénégal taxaw na ndaxte munul ne xamul na woon amoon na baax a baax lu xewoon ci kër Ndella amoon nañ ko garde à vue Ndella Madior Diouf dañ ko prolongé ba mardi sama naataango ne ah état nag nee na loolu am na waaye dinaa constitué partie dinaa constitué partie civile nag te damaa jàpp ni dañ na tooñ enquête loolu la wax mu toll nii nag sama naataango bii di le journal les ah kii di Ndella Madior Diouf daanaka fête Noël moom dina ko dégg ci commissariat bi foofu la koy passé Noël foofu la koy def sama naataango bi di journal Tribune ne Maimouna Cissé Houma wax na directrice agence nationale la petite enfance de la case des tout-petits daanaka nee na ñu yokk kon mesures yi ci wàllu yorum crèche yi ak pouponnière yi ñu wax ci politique ak kii di Barthélémy Dias xam ngeen démb ñuy ko doon atte fële ci cour suprême ci wàllu affaire Ndiaga Diouf bi sama naataango bi di journal bi di jour ah yëf de ndaxte ku nekk xam na fu mu toll nii moom itam mi ngi ci guddi ju bët setagul waaw mën naa tàngoo ne a ah, kii di Barthélemy Dias ko attee démb confirmé attee cour d'appel bi ah bu moyul bu ko dina perte kon mandat député bi mën ne du loolu kese mun na itam perte mairie Dakar loolu tamit na ko xam réew mi quotidien ne ah Barthélemy vers la sortie daanaka parrainage des élus itam mun na gàllankoor kii di Khalifa Sall bu fekkee ni option boobu la def benn spécialiste na ak tribune sama naataango waxtaan Cissé kooku ne kii di président Macky Sall dafa obligé révoquer maire de Dakar foog mu signé di jëlee Barthélemy Dias ci maire de Dakar loolu obligation sama naataango bii di journal L'As ne Barthélemy Dias mu toll nii kon Barthélemy Dias daanaka moom ah Aïssata Tall Sall lay lay xaar yool na mbol di ko xaar ndax dina xàcc dóor wala dina ko baal sama naataango bii di journal Sud Quotidien ne mu toll nii kon ah kii di verdict Cour suprême bi confirmé na cour d'appel Barthélemy signé ne Barthélemy léegi nag nekkatoo député léegi nag nekkatoo député nekkatoo maire maire maire Dakar man yi ne ah, fu mu toll nii kay président Macky Sall ak ministre de la justice ñoom ñoo sëkk Barthélemy mu nekk au milieu ku nekk mën na mbéj à tout moment sama naataango ne Cour suprême kon confirmé na loolu nee na itam Barthélemy Diaz yow mi tiire woon ci Ndiaga Diouf di nga fay vingt cinq millions famille de famille bi ne woon nga doo fay da ngay fay 25 millions wax naa la ko terminé Barthélemy Diaz wax nag ci Vox Populi ne man mii Barthélemy Diaz mandat député taxul ma rey sama bopp non mandat député taxul ma taxul ma dee su ma nekkul député ndax dinaa dee am na ay nit ñi bëri ma leen di gis ci réseaux sociaux yi kontaan bëgg man ma jóge ci mairie Dakar loolu mooy lan ah waaye nañ muñ bu ñu ma catu de bu ñu ma catu ndaxte maa ngi ci bopp mairie bi dinañ xam ni daanaan lañ se lañ ko sekkal nag waaye nag bii di soleil ne waaye nag sama naataango bii di soleil ne ah bu fekkee ni daanaan la de dinañ ko xam ndaxte fu mu toll nii moom sombre perspective rek guddi ju bët setikul man loolu laa gis pour Barthélemy Diaz sama naataango bii di journal Le Quotidien wax nag ci immigration irrégulière nee na ah ren ji Sénégal yi metti na ci moom ndaxte vague de départ yi bëri woon na ngir dem ci îles Canaries naka noonu comme xale yu bëri ñàkk lancé ay pirogue ak ay passager ñoom ñëpp ñu dugg ci géej gi sama naataango bii di journal Vox Populi wax nag ci projet Sangomar bi ci wàllu exploitation gaz bateau boo xamante ni bi war a génnee kon gaz boobule euh, jóge na fële ci Singapour foofu lañ ko doon defaree sama naataango ne ah jóge na démb kon ci chantier naval boobule ngir wutali Dakar te ñu ngi koy xaarandi ci suñu réew février 2024 euh, Coupe d'Afrique des Nations a sama naataango ne Boulaye Dia moom démb da doon joué waaye nag génn na sur blessure ndax moom dina mën a joué kon Coupe d'Afrique bi ndaxte soreetul la sama naataango bi di journaliste Écho moom jox parole journaliste bi di abu Aboubacry Ba moom nag wax na ci Sénégal ak chance am sama naataango ne ah Aboubacry moom defa optimiste nee na daal ah Sénégal dama ko gisee de ah man jàpp naa ni am na chance bu baax a baax continuer di garder titre am daanaka gagné Coupe d'Afrique des Nations le journal Stade Quotidien wax nag ci mercato bi sénégalais yi nekk ci euh, l'Olympique de Marseille war a jóge foofule sama naataango ne Iliman Ndiaye nekk na ci situation boobule Ismaël Sarr ak Pape Gueye sama naataango ne ah ñoom fan lañ jëm sama naataango ne boo moyul de ñoom ñëpp dinañ dem migrer fële ci Angleterre ci Stade AFC dina jouer contre Jaraaf de Dakar choc au sommet loolu la journal bi wax am ci euh, sunu lamb rëg-rëg Bombardier si dimanche bi ah kay bii combat loolu la sama naataango wax sama naataango yokk ni ah encore un grand contre un petit ci arène bi gannaaw Modou Lo Ama Baldé gannaaw Modou Lo Ama Eumeu Sène Tapha Tine Lac 2 Siteu Zarko Diène Kairé Zoss Ada Fass Bombardier dina kon affronter rëg-rëg ci dimanche bi ci arène nationale Pikine sama naataango ne